jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 tey si euh, samedi bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum 2020 euh, seen émission pencum réew mi dellu si waat ci samedi ji ndax xam ngeen ne samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures ñu ànd si ak yéen maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu seen mbokk Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi. Euh, Mamadou Diawa jàll moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi nag tey ñu daal di am benn euh, invité bu spécial di René Pierre euh, Yahoume mu nekk responsable politique APR Dakar Plateau ba pare tamit am na kuréel yoo xamante ne jiite na ko ci biir dina ñu si ànd ak moom li tax nag invitation bi li ci ëpp li ñuy waxtaane mooy gouvernement bu yees bi bi ñu ko tegee bi ko président Macky Sall tegee gouvernement bu yees bi ñu gis ne am na ay opposant ñu nekkoon ci kujje gi ñoo xamante ni tey dugg nañ ci biir gouvernement bi ku ci mel ni Idrissa Seck moo ci gën a fës ak euh, Omar Sarr ak yeneen ministre ci biir loolu na gouvernement bu yees bi dafa bëri frustration boo xamante ni dafa am ci biir APR am na si ñoo xamante ni peut-être duñ ko wax ci kaw waaye ci biir ndaw ñi tamit bëri na si ñoo xamante ni tey am nañ lu leen ci naqar yi Euh, René Pierre Yahoume mii nga xamante ni tey moom la ñu invité mu toog fii ci studio bi tey danañu waxtaan ak moom ci loolu ndax ñoom dañoo taxawal tamit benn collectif euh, militant authentique yu APR. su ngeen gisee may def rappel bi pour ngeen ngeen bàyyi xel émission bi ak lan la ñuy euh, waxtaanee René Rewmi FM a ngi lay nuyu. waaw sëñ Abdou Khader maa lay nuyu di la ziar di la jaajëfal si sa tur mag bu tell bi bu sell bi di nuyu bëpp auditeur auditrice Rewmi FM di nuyu surtout les sénégalais de la diaspora parce que su ma nee diaspora foofu laa nekk nekk naa Angleterre ne coordonnateur de l'APR en Angleterre di beral loxo waa Dakar Plateau di nuyu tamit le collectif des authentiques de l'APR te su ma nee collectif bi yaakaar naa dugal naa si APR yëpp mooy 97 pour cent de l'APR ñu Euh, jërëjëf euh, René Pierre euh, Yahoume sànq yaa ngi tudd Angleterre bala ñuy ñëw ci seen collectif bii nga xamante ni tey li tax ngeen taxawal collectif auta les militants authentiques de l'APR bokk na ci mer wala rébellion boo xamante ni tey wala lu leen naqari ci doxalinu président Macky Sall dana ci ñëw mais tey pour auditeurs yi nga xamante ni ñoo lay déglu lan mooy firndeel ne yow militant authentique nga bu APR. am tey sooy wax affaire authentique dafa am lu ñuy woowee authenticité tey ñun ñëw ni sax di fëkk dënn di ne ñu ñëw fi nekkan pour écarter ñeneen no parce que mais politique il faut rendre à César ce qui appartient à César boo ma nekkee Angleterre di bay sama waar balaa loolu dama daan ab ndaw dugg ci politique ma nekkan parti démocrate sénégalais xale bu ndaw 1995 96 nekk responsable à Dakar Plateau ma dem Angleterre en 98 ma sanc fa PDS nekk secrétaire général des étudiants amee. ba loi ISAN amee si laa bàyyi PDS si laa bàyyi PDS bokkutuma benn parti politique ma nekk si ay kuréel yu ñu woyee Nation Islam mooy mouvement Malcolm X boobu ma nekkoon porte-parole à Londres à Stoke Newington Mosque ma dugg si ay mouvement yu bare nekk si ay mouvement yu ñëpp luy jàppale doomu nit ku ñuul pour mu am taxawaay foofu bokkoon naa fa wante tey engagement dafa doon dafa doon loo xam ne di inné en la personne c'est une passion parce que dama jógee kër boo xam ne Dakar Plateau mooy sama maam mooy Abdoulaye Gueye Kabri nekkoon porteur pancarte nekkoon vice président assemblée nationale mu doon bañkat ba mu ñëwee si parti ba mu ñëwee assemblée nationale gisul loo xam ne ba boo xam ne du yoon daf ko bàyyi foofu bàyyi lépp sénégalais yi mooy wax xam nañu ko Abdoulaye Gueye Kabri man su ma nekkee ab ndaw damay dégg ay jeunes di wax ay mag mag di wax ñun ay ndaw yoo xam ne ñu bëgg a chantage président de la république man tey damay rappeler l'histoire c'est important parce que yaa ma woo invité ma damay wax pour Sénégal yi xam tey président Macky Sall dafa ànd ak ku ñu woowee président Idrissa Seck xam naa ko bu baax a baax ñun amuñu un problème à chaque un président mu tànn ak ñu muy liggéeyal mais tey doo bàyyi si ay malade nga jël jël yeneen malaat jëm leen renforcer tey ani ndaw yooyu di wax ñun ay ay maître chanteur nii ani responsable di wax ñun ay maître chanteur ba Idrissa Seck nekkee prison jabaram day pend moo ma mu woo secrétaire am Dior mu woote suñu kër jamono yooyu c'était en 2004 wala 2005 mu ne utal ma numéro René Pierre ma toog bés ndey Penda woo ma depuis Paris maa ngi Angleterre mu ne ma René Pierre na nga def dégg naa nga bàyyi PDS ma ne ko Ndeye Penda bàyyi naa PDS mu ne dama bëgg na defal ma benn affaire pour ne defal ma déclaration pour demander la libération d'Idrissa Seck ma ne soxna si amul sens Idrissa Seck mu ngi prison mu ne yow sa kàddu dafa am importance ci Sénégal parce que xam naa xam naa sa engagement mais ñooñu tey est-ce que Ndeye Penda woo na leen tey te Idrissa Seck tey moom yi ñuy jël jox lépp mu nekk suñu kaw man boo jamono boobu mu koy def engagement laa ko def. d'accord d'accord d'accord d'accord mais euh, René euh, yéen euh, yéen ndaw yi APR wala yéen si yéen euh, li ñu teg gouvernement bi ñu teg jël Idrissa Seck jox ko conseil économique social environnemental jël Omar Sarr def ko ministre jël Yankhoba Diattara def ko ministre jël Ali Saleh def ko ministre jël yeneen poste de responsabilité fal ko ñeneen ñoo xamante ni tey ay opposant lañu woon ñu doon xas président Macky Sall ak ñu ko doon saaga ñooñu la président Macky Sall tey jël boole leen ci gouvernement bi génne tamit ñoo xamante ni tey jàpp nañ ne ay kàngam lañu woon ci biir APR génne leen ci gouvernement loolu lépp nag sañ-sañ président Macky Sall yéen gouvernement bu bees bii mu teg René Pierre auditeurs yi ñoo ngi lay déglu yow ak ñi nga àndal di ay ndawi APR lan moo leen ci naqari. xam ñun tey un président de la République dafa am un pouvoir discrétionnaire il peut nommer aux emplois et militaires tey am na moom loo xam ne mu ngi koy diisoo ak ñeneen mais ñun li ñu constaté mooy que dafa am ay fractures au sein de l' alliance pour la République tey fracture boo xam ne premier point mooy yoonu yokkute boobu tey dafa doon woonu yoonu wàññute su mu nee wàññute mooy ñu mu àndaloon démb mooy ba ñuy créé les fomme baptismaux de l'APR yaakaar naa président ba ñu ànd ak moom du xaalis du woon dara engagement la la ab vision mu am pour Sénégal équité territoriale ak vision inclusion sociale moo tax Sénégal yi ànd ak moom beneen deuxième point mooy tey jeunesse bi amoon àndaloon président Macky Sall tey jeunesse boobu dafa jeunesse boobu a été trahi moo tax jeunesse boobu day obligé tey mu jël le prendre le chemin de l' exil war a du suicide moo ñuy jël ay gaal yi tey. parce que en 2012 jeunesse yooyu ñoo xeex ñu fi nekkoon démb te ñuy xoolaat encore ñuy xeex démb ñëwaat ci pouvoir bi moo tax jeunesse yu bare mer gàddaay nit ñi dañuy dem bitim réew ñuy jël ay gaal. amatuñu yaakaar ci réew mi amatuñu yaakaar ci parce que mu amaat beneen leneen loo xam ne mooy identité de l'APR. waaw lu parce que lu am ni yaakaar tey munoo jël ñoo xam ne jeunes yooyu ñoo ànd tey mun naa ne ñu fal président Macky Sall la su dee cinquante huit cinquante huit pour passe. ay jeunes lañ su dee cinquante cinquante huit pour cent la. mun naa ne huit pour cent APR la. mais ñeneen ñi c'est des sénégalais yoo xam ne ay jeunes ay ndaw ay mag ñoo ànd ak Macky Sall ab vision am mais tey ndaw yooyu xeex. Ablaye Wade jamono boobu hmm. suñu xoolee ñu doxee Ablaye Wade parce que lan moo taxoon parce que ni ñu doon defee réew bi moo du noonu ku mu am ndey ku mu amul ndey ndaw yooyu toog léegi jamono yi gis ñooñu ñoo xam ne ñoo nekk si nguur bi ñëwaat ànd ak président de la république di def lu leen neex mais ndaw yooyu tey ñu yaakaar amuñu espoir tey ñu jël gàddaay ñoo xam ne ñu doon exil def loolu beneen bi dafa mooy identité de la paire dafa défiguré par des alliances qui menacent l'unité même que identité bi tey tey suñu ñëwee APR day am identité originelle mooy yoonu yokkute mais yoonu yokkute boobu espoir la woon mais léegi c'est un désespoir léegi mooy yoonu wàññute parce que tey ani ñu mel ne ay Moustapha Diakhaté ani ñu ani ñu mel ne Alioune Badara Cissé ani ñu mel ne ay Moustapha Cissé ay Mimi ani ñu mel ni woon sax ay ñoo koo xam ne Abdou Abdourahmane Ndiaye Abdourahmane Ndiaye tey moom moo nekkoon si parti bi moom mooy xool bëpp communes yooyu di xool ñi foofu ñañu war a renforcer foofu noonu mais ñooñu kenn gisu leen. da nga gis ne Macky dafa trahir nitu démbam. man dama ne tey le problème que nous avons à l'APR c'est le président Macky Sall tey la jeunesse ay trahi tey même les ministres sont trahis dégg nañu Macky démb yàggul bun Abdoulaye Dione oh, réunion bu amoon scène bi secrétaire exécutif parti bi lu mu wax mu ne c'est très tôt d'acquitter la vie d'Idrissa Seck mais président tontu aussi tey benn benn benn journal boo xam ne benn journal reconnu boo xam ne lu muy wax dëgg moo ko jëndee. moo ko génne wax ko mais loolu day wane que tey président Macky Sall ñu mu doon diisoo démb diisoo ak ñoom tey tey dafa bàyyi ay xaritu xaritu ñu ànd ak moom jël ay xaritu démbam. tax sànq lu ma doon wax lu important na dog ma dama ne ba ndey penda wooy ma ba mu nekkee Angleterre dafa ma boolee doomu Alioune Badara Niang génn na àdduna yàlla yàlla yàlla ko yàlla xare àjjana ku tudd ndey ami mu ñëw ba Angleterre ànd ak man ndey penda ne ma defal déclaration ci laa def déclaration bu Walf Fadjri Sud FM pour demander sa libération loolu tax parce que ñun du chantage mooy tax a jug du xaalis mooy tax a jug Abdoulaye moo dàq may moo dàq may Macky Sall Abdoulaye moo ko gën a généreux fuuf tey ku bàyyi 2004 Abdoulaye Wade soxlul xaalis mais lu muy gën mooy reconnaissance tey Macky Sall su xamul suñu njëriñ Moussa Sy fii la toog barki démb mu ne Macky Sall dafa jàppe waa Ndakaaru ay jaam ne Macky Sall il a un gouvernement d'incompétent de nulard te Moussa Sy li ñu nommé PCA au port tey Ousa Diallo chanteur la xam ni ko jamono Abdou Diouf amoon na doole ñu xam ni Père Ousa Père Ousa dama ne meeting Khalifa Sall yàggul barki démb mu jékki-jékki wax mel ni xeme ni toog à nos grandes surprises ni gis ko parler il a été reçu par le président te ñun. président mais Idrissa Seck mi doon wax vision Macky jam ñaajo la yam nag. mais démb dégg na ko ku mel ni député Déthié député Déthié wax na ko Déthié Fall wax na ko mu ne way Macky Sall vision mi war na dépassé jam ñaajo mais loolu mooy lan Déthié député la Idrissa Seck la àndal mooy numéro 2 am te Déthié fu demee ba wax loolu. man damay damay damay ne ah attention ànd bi muy dem dina xaw a doy waar dafa am benn général de la guerre de Corée Douglas MacArthur mu ne l'histoire de la guerre des causes perdues peut se résumer en deux mots trop tard pour aller ses amis ou bien trop tard pour connaître les destins de son ennemi en puissance te dëjee su waxee loolu mooy man sama xel dañ koy jéem a naxasal est-ce que ëllëg année bi dina yegg lu tax lu tax dëjee wax loolu te mu doon député te moo doon numéro 2 Idrissa Seck tey Idrissa Seck moo ne ànd bi mburu ak soow mais lu dëjee wax démb du ànd mburu ak soow ànd bi ànd boo xam ne la ànd bukki la ànd boo xam ne dafa am lu ñu woowee fox lu ñuy woowee wolf ma ànd renard ak ànd loup moo tax ñun jeunesse APR yi ñu ñoo taxawal un collectif collectif bi ñu si nekk damay wax seen tur am na ku mel ni caay jaabi jàmbaara si parti bi ku mel ni Ibrahima Pouy ku mel ni Ñambe ku mel ni Matar ku mel ni Matar Gueye ku mel ni Nourou Niang ku mel ku mel ni ku mel ni ku mel ni Baye Gana Diop ñun ay ndaw ni mais ñooñu ñëpp wax ma fan la ñuy milité. fan nekk su ma Ibrahima muy Grand ñambe ñambe ñambe muy Rufisque bay bayganda muy Kër Massar caajaa euh, bi muy Podor caajaa muy Podor tamit mu muy yoof ah. amul ñu nekk extérieur aussi. am nañu extérieur mais tey lu ma lu ma jaaxal dëgg-dëgg ba ñu defee lancement bi mais ñu bari ñooñu woo di appelé yow sax ba ngay ñëw tey am na ku am na ku la woo pour laaj sama numéro. ku nekk tubaa ba waa Touba ne ñoom ñu pare pour ànd ak ñun la moo tax ndaw yi bu ànd ak ñun tey mun naa ne te ñun tey on représente quatre-vingt-dix-sept pour cent des militants de l'APR frustration tey am na ñoo xam ne tey mënuñu wax parce que seen position la ñun position tax ñu jóg. d'accord léegi René euh, ñi nga xam ne ñoo mer APR frustré nga xamante ni tey gisatuñ seen bopp ci APR gisatuñ seen bopp ci ni président Macky Sall di doxee gisatuñ seen bopp ci vision bi nga xamante ni tey moom la leen président Macky Sall gëmloo woon tey boo ko doon xayma tey ci jeunes yooyu ak ci yenn ci ay cadres yi ndax biir APR. am na ay cadres même yow soo ko waxul am na ay cadre yu bari yu mer am na ay change yu mer mais jeunes yi ñi mer yow soo ko doon xayma tey ban pour pourcentage nga koy joxe. tey mun naa ne jeunes yu mer si soo koy xool mun naa ne am na lu mel ni ay 65 pour cent jeunes yu mer loolu soo ko déggee daanaka mooy lépp. parce que jeune mooy fal président jeune mooy yóbbu président tam parce que loolu dama ko wat tey dafa am lu ñuy woowee alternance générationnelle mais alternance qui devrait redonner de la vigueur et du sang neuf au parti et escamoter pourquoi je le dis tey suñu demee ba yenn instance yi mu ay ndaw yu am ay diplôme am na benn exemple may jox am na benn xale bu jigéen du ma wax turam de xale bu jigéen bi dafa dëkk ànd ak président Macky Sall di liggéey ba dee papam dina ko kër parce que dafa tere muy ñëw mais bu mu liggéey ay jeunes ñoo dem seeti Diagne Fada waxtaan ak moom nekk ah kii moom Macky la àndal ba sonn amul liggéey Diagne Fada moo mujjee jël xale boobu muy liggéey donc loolu c'est dangereux koo xam ne APR APR yi ñu siis yéen dégg na président Macky Sall mu ne APR amul amul lu ñuy cotiser mais c'est normal te responsable APR yooyu mu jox yenn ndomba tànk ñoo ëpp xaalis président Macky Sall te ñoom ñooy tabax ay cinq kër ay château tey ñoom seen xaalis boobu ñu ëpp charge Macky Sall moo tax amuñu jot pour defar parti bi tey Idrissa Seck benn côté dama ko dama ko fan bañ ko nomee dafa ressuscité Awa Gueye Kébé Idrissa ku ko xam day jàppale waa Thiès moo tax kenn ko gañee Thiès mais ñun dañuy bàyyi suñu ànd bëgg a jël topp àndu jàmbur loolu ñoo war a xoolaat suñu bopp am na loo xam ne nit ki moo koy fajal boppam maam Cheikh Fall dafa ne sëñ Touba mu ne ko Mbàkke jox naa la lépp sauf sama ngor nit day am dignité day am ngor ñun suñu suñu mbéjum karam ñoo koy fajal suñu bopp moo tax ñoo ngi woo un ñoo ngi woo un appel aux jeunes sénégalais boo xam ne bokk différents partis politiques tey soo xoolee le combat de Barthélémy Dias le combat de Guy Marius Sagna mais c'est parce que ils ont été constants mosoo dégg Barthélémy Dias mu wax loo xam ne mu wax loo xam ne détourné yoonam mosoo dégg mosoo dégg Guy Marius Sagna mu wax loo xam ne détourné yoonam muy Sonko ils ont été constants du depuis à la fin opposition dëkk dëkk day am dëkk day am une grande démocratie démocratie mooy lan tey fii nga gisee Sénégal le numéro de le numéro un de l' opposition mu ñu ànd gouvernement bi mu bàyyi benn côté d' accord naa président day renforcer sa majorité mais tamit day doon un frein à la démocratie pour que le chef de l'opposition puisse accompagner le président tey dans les grandes démocraties soo demee mel ni Angleterre day am li ñu woowee shadow prime minister tey shadow prime minister mooy lan mooy chef opposition bi de temps en day liggéey ak président bi sur des questions diverses mais tey Sénégal lu ma gis nii mooy lan ñu ngi mooy ku ma am ndey ku ma amul ndey ñun duñu nangu loolu tey président Macky Sall dafa war a xam ñun tey ñoo ko fal ba mu toll fii ñoo ko jàppale ba mu méttee ñun si seddaay bi maa ngi rappelé journée journée internationale de la diaspora man trois personnes ñu nekk si salle bi ba may dem dafa neige bépp na Sénégalais génnoo ma génn dem ñu dugal suñu xaar suñu ay moyens suñu temps suñu énergie am na ñoo xam ne seen sëy tas na si tas na na président Macky Sall ñu nekk si diaspora bi parce que soo amee sa jëkkër mu ne la bul dem lay dem am na jëkk am na góor yoo xam ne seen jabar bàyyi ne leen parce que ba ñuy faloo ba léegi seen jabar ñoo ñoo tongoo ne leen yéen ba nga fale bale amoo am si kër yi gars yi dem ñu bàyyi seen liggéey moo tax mu ne immigration clandestine man nekk dans chef de cabinet au Sénégal extérieur gis naa lu bari lu fa xew ba Sénégalais yi ñu leen Lampedusa en 2015 ba ñu duggee si avion man yooyu yooyu yooyu Sénégalais man ne leen président Macky Sall moomu yónni boo maye la seen ministre Souleymane Jules Diop man ne leen yàlla bi nekk Sénégal yàlla boobu moo nekk lébi fii seen réew la vous êtes parti à l'étranger vous avez pas échoué vous êtes rentré chez vous mais tey ani Sénégal yooyu ani Sénégal yu ñu jëlee libi jëlee Centrafrique mais Sénégal yooyu ñoo delluwaat dee si ndox bi tey am na ñoo xam ne ils préfèrent se suicider silencieusement que de rester que de rester ici vivre dans le déshonneur devant les leurs. kon kon da yaakaar ne ñi dem ci géej gi président Macky Sall am na ci part de responsabilité. am na si part de responsabilité lox soo xoolee pandémie bi tey pandémie mais ñaata milliards la état du Sénégal dugal si pandémie ñaata moor mu am si pandémie bi tey immigration clandestine ñaata moor mu am tey soo koy natt soo koy soo koy natt taw taw tawu moor immigration mu ëpp tawu moor. Euh, Covid 19 bi mais mille mille milliards yooyu muy def yooyu tey soo jëlee structure de la jeunesse au niveau du Sénégal seen budget doolu tollu loolu tey président dafa renforcer ses structures de la jeunesse jox leen xaalis lu mel ni lu mel ni ANPEJ mu jox ANPEJ ANPEJ lu mu bëgg liggéey amul xaalis. seen structure dafa amul dafa ndaw tey Prodac lu mu bëgg liggéey Prodac soo xoolee Prodac Prodac day jël koo xam ne non diplômé koo xam ne am na diplôme def ay terre aménagée ay ay hectares ni liggéey DER bi nag DER DER bi ay bi tamit war nañu xoolaat DER bi tamit yenn yenn conditions de critères yi man je le dis souvent parce que pourquoi je le dis parce que DER tey su nekkee nga yemale uniquement pour ay jigéen ne góor en certain âge waroo am yenn conditions yi tey am na ay jeunes yoo xam ne mais saranteel ay jeunes entrepreneur tout à l'heure ba may ñëw benn jeune entrepreneur dafa ma ne grand dégg naa yaa ngi la mais day métti il faut ñu xoolaat tey suñu demee ay booru caaro yi waa caaro yi jeunes yooyu lan mooy seen mbëbët si yan liggéey la gars yi yëngu ni xool liggéey leen jàppalee jërëjëf euh, René Pierre euh, Yahoume yow nga nekk responsable politique APR ci Dakar euh, Plateau nekk membre ci collectif des militants authentiques de l'APR maanaam muy collectif boobu nga xamante ni daal mën nañ leen a woowee sax ay rebelle ndax rébellion moo fa am ndax da ngeen a am lu leen naqari ci parti bii di APR léegi sama question mooy seen xeex bi ngeen commencé est-ce que du ay xumbal la ngeen def ko fii ak weer gars yi woo leen neexal leen yedd leen ngeen tegaat ko ci suuf wala da ngeen a fas yéene dem jusqu'au bout. man de ku ma xam ak ñu ma àndal ñu ma àndal ay gor ni te naw naa leen moo tax mu ànd duggandoo si combat bi man du ma dugal loo xam ne gëmuma ko parce que gisuma àdduna loo xam ne fees na sama bët gisuma loo xam ne war naa jaay sama ngor c'est très important tey réew bi. dañu toll jamono boo xam ne restauration des valeurs républicaines dafi néew doole dañu toll jamono boo xam ne tey sàcc moo gën a sàcc moo gën a am njëriñ ko koo xam ne moo nekk nitu dëgg il faut ni delluwaat fii xam ne réewu Léopold Sédar Senghor la fii réewu Mamadou Diallo la réewu Ousmane Ousmane Blondin la ñooñu ay Vadione Ndiaye ay Sénégal yoo xam ne ñu jaayeen seen bakken pour Sénégal toll fii su ñëwee ba jamono yi ba am boo xam ne loolu aujourd'hui mun naa def si tubaab l'intelligence s'est rabaissée pour être la servante de la médiocrité tey au lieu nit di xalaat intelligence au lieu xalaat tey te ñu gën a méjoog ñooy wax te ñu toll dëkk boo xam ne des tonovides font beaucoup de bruit man lu may wax rek ñun ñëw ni tey pour ni nax ni te gawma nit mun na ko nax xale xale léegi xale est-ce na nax xale xale soo ko mee xale soo ko nee naa naa jox lii suba nee na ko doom du mu la ko jox du dem ñun li ñuy xeex nii reconnaissance la au sein de l'APR kenn xeexul pour ay promotion kenn xeexul pour am dara parce que la nomination est divine c'est-à-dire que tout dépend des circonstances on, on reste des militants de l'APR on n'est pas dans un autre parti jëmuñu parce que sànq nga wax benn moo nee na ay rébellion du rébellion de c'est-à-dire que une révolution qui n'est pas accouplée dans ses idées et dans ses mœurs échoue lii lan la jàngat la diagnostic la sans complaisance de la situation tey soo ànd soo am tey lu président Macky dafa graaw dafa mel ni tey ni nekk na am sa jabar 10 ans de mariage na yeewu suba teel na ndékki ren na gis si table table d'ingénieur bi rek papier de divorce loolu président Macky Sall def waa moo tax ñun tey ñooy jéem a faj buum boobu ñun tey ñooy jéem a delluwaat bu wax gars yi lan la lan mooy APR mooy alliance pour la république tey alliance pour la république dafa gën a néew doole mu ñuy toog tey alliés yi ñooy gën a servir tey ñu doon saaga Macky Sall di wax lu bon tey ñoom ñoo nekk ci kaw alors que ñun tey suñu gox yi suñu gox ñu niy dugg ci car rapide dugg ci tataay yi ñoom ni dugg ci karkat yi dugg ci lépp mais tamit politique dafa am ni ñooy reconnaissance loolu yàlla moo ne Dieu aime les reconnaissances Dieu Dieu aime les gens mais tey mais Macky Sall reconnaissant wul man c'est-à-dire que dama le président Macky Sall il est animé d'une générosité suicidaire envers ses alliés mais par rapport aux gens de la paix gisuma ko. gis gisuma tey tey tey ani Me Aliou Mbada Cissé koo xam ne jàmbaaloon si parti bi gisuma ko tey ani ani Mbaye Ndiaye gisuma ko dégguma ko tey am na am na Moustapha Diakhaté dégguma ko tey am na ñoo xam ne dafa am loo xam ne tey suñu àndee nit ah Moustapha Diakhaté même su amee yenn idées yi c'est-à-dire que il a une opinion contraire c'est pas un rebelle c'est quelqu'un qui croit à ce parti c'est quelqu'un qui est dans la paire ñun ñëpp APR mu ñu gëm Macky ñu gëm mais néanmoins man su ma àndee nit saa waay dafa am lu may taxawee. d'accord mais mais mais René euh, yéen ñi nga xamante ni yéenay ndaw ñi peut-être tey euh, mer ngeen wane ngeen seen mer. président Macky Sall aussi yëg na ne mer ngeen mais tamit tey est-ce que amul ñeneen ñu nekk ci biir APR ay cadre ñoo xamante ni tey amee woon nañ ndomba tànk ba ñu dindi ndomba tànk yooyu si ñoom euh, ñu mer ba pare di ko wax ci suuf est-ce que gisoo ni ci sommet bi au sommet de l'APR est-ce que gisoo ne am na ñu fa mer ñoo xam ne mere nañ président Macky Sall gëmatuñu président Macky Sall tey bu ëllëg jotoon mën nañu ko wan ginnaaw waaye dañoo noppi instant bi ngir bañ mu sonal leen ci dara wala dara est-ce que jàpp loolu am na ci ci haut niveau. ah man de lu may wax rek au ñu nekk si haut niveau ñun tey amul benn responsable boo xam ne si biir parti bi sañ am na sañ-sañ yabu ni sax man ku ma xool kenn yabu ma du ma nangu mbindeef di ma yab di ma ne René defal ma lii defal ma lii te ñu ma àndal kenn du leen wax loolu loolu responsable yooyu. su ku mer sa affaire la am na ñoo xam ne. mais mais mais état baa ma am ne dañ jox ndomba tànk mais qu'est-ce qu'ils comme dem du ma wax ay tur dañuy dem jël ay opposant teg leen opposant jàppal leen lobby leen ba ñu nekk ay directeur pour lan la parce que soo nekkee directeur tey su ñëwee laaj la dara da nga koy jox facilement xam ni que ñun mun ni dara suñu mun ni laaj dara parce que ñoo bokk ñoo bokk engagement ñoo duggandoo ci parti bi parce que dans un parti le grade le plus élevé c'est le grade des militants nous sommes tous d'égale dignité tey soo jëlee un René un René Pierre mais man ma gars yi di reproché ni ne René il est yàlla moo bëgg kuy wax dëgg yàlla dëgg la bugg nit man dama gëm loo xam ne ëllëg damay dugg si bàmmeel sept mètres percale kese la man damay wéete suma borom tey la moo tax ma nekk politique président Macky Sall moo doon wax politique nit da war na mu def ay éthique moom moo ko wax nit mën na mu def ak ak loo xam ne engagement nit mën na ko def loolu mais suñu demee ba ba jamono yi tamit gis leen loo xam ne naka sudu noonu ñu tamit daf ni daf ni jaaxle ñu war a toog xolaat suñu bopp loolu moo tax tey on lance un appel tey c'est le soldat qui parle au président de la république il est temps mu xoolaat parti wam parce que am na ñu mer bare na de am na ay responsable yu mer bare na ñun ñun ñun duñu naa fekk ñu nekk si biir parti ba pare dis dara loo xam ne duñ ko wax mais am na ñoo xam ne tey ñoo ngi ñoo ngi nekk di ànd ak ñeneen di jéem a xool nañ koy def ñun tey Macky Sall balaa mi xam ñu ñooy kan ëllëg su nekk opposition ñu ñoo toog ak moom ànd ak moom ñu mu jël ñi yenn ñu bare gëmuñu ko. tey ëllëg su ne ëllëg su neex nekk ëllëg démb démb démb am na loo xam ne mosuñu ànd ak moom tey suñu ànd ak moom mooy amuñu pexe seen pexe lépp lan la c'est pour le contourner demain moom peut-être am na lu ñuy lam-lamee ne ne ay. régime libéral plus de plus de cinquante ans man PDS laa bokk de. famille libérale famille PDS laa bokkoon de PDS laa bokk de laa bokkoon de man waruma am problème de mais man dama gëm importe plus que le parti man dama gëm la république dama gëm défense de la république ma loolu laay nooyee loolu laay waxee loolu su amee noonu président dafa xoolaat boppam xoolaat parti bi parce que mënoo am ay malade l'APR est malade les militants sont malades moom mooy docteur bi dafa war a faj su ko fajee ñu ñu benn garab tey le vaccin qu'il doit chercher c'est le vaccin de l'immigration léegi euh, René Pierre euh, mi lenn tamit dañ ko nemmeeku ci biir APR mooy dafa am ay ministres yoo xamante ni tey président Macky ba muy doog di créer Euh, gis nañ ko si mel ni tey ay Benoît Samb ay Mor Ngom ay May Ndiaye euh, ay Thierno Alassane Sall ay Aminata Touré ay Moustapha Diakhaté ay Moustapha Cissé mais ñii ma la limal ñëpp ak ñeneen ci APR presque boo xoolee yoruñu benn ndomba tànk bu tax ñuy wax ñi yore ay ndomba tànk ci gouvernement Macky Sall bi ñu néew néew ñoo ci gëmoon vision président Macky ñi mu àndaloon dañoo amut xarañteef pour doxal réew moo tax président Macky Sall dem jéggaani ji ko feneen wala lan moo xew. mais am politique fa am lu ñuy woowee political appoint tey quand on gagne on prend ses hommes soo demee ba si biir nga gis dara da nga rectifier di modifier mais ñu ñu ñu nga tudd sànq ñëpp ay jàmbaar ne xoolal commune ni Benoît Sambou Benoît dafa liggéey ànd ak parti bi. pourquoi may wax Benoît Sambou parce que dama rappelé ba mu nekkee Angleterre man maa le seul responsable nekk Angleterre am comité en Angleterre mu am Sénégal. sama boo frère ma ñëw ma jox ko un million ma ne ko soo demee Sénégal jox ko jox ko diw ak diw ni montel ma comité Daniel Brotier ma fay saal jamono yooyu montage comité fan la woon si mbedd ñu koy defee dama fay Sall da jamono yooyu defar ay t-shirt Benoît Sambou moom mu dem si mu dem si manifestation boobu am ministre ministre bi ministre bi mu tudd Néné Fatoumata Tall maa ngi koy nuyu au passage sama sœur la sama xarit la Benoît dem mu ne musuma dem si montage comité mais René Pierre jaral na ma ko dama koy gis si internet bi il est engagé Lo mu ne ma du mun dem day yónni Ngagne Sène donc ñun duñuy duñuy ñun duñu nuy gan ci parti bi tey ani ñooñu ay Benoît Sambou ay Mor Ngom tey Mor Ngom c'est un stratège Mor Ngom jàmbaale ci parti bi mais tey ani mu ci parti bi tey est-ce moom am na tey est-ce que moom na lu ko neex tey mun naa la waatal ministre yu bari yi ngay gis yi ànd ak muy doxee nii dara neexu leen ci mais mënuñu wax parce que des fois peut-être na seen position yi géré man tey man naa liggéey am naa fu muy liggéey tey fu ma nekk man tey liggéey boobu may nekk ni suy bëggee suba suba suba suba ni dàq ma ci liggéey boobu la moo tax parce que lu may gëm ni engagement la gëm parce que Nelson Mandela il a fait 27 ans en prison il est des plus grands présidents dans ce monde Angleterre dama gis sa statue devant le parlement de parlement anglais Abdoulaye Wade pendant dafa xeex ba doon président Macky Sall yi ñoo ko jàppale ak ndaw yi ñoo ko jàppale su ko ndaw yi jàppale tamit dafa war a dafa war a dafa war a jàppale ndaw yi am ñu mu jàppale de mais des na. d'accord mais mais René Pierre euh, dafa ni tamit a jaaxal ci président Macky Sall peut-être yow mën na la bañ a jaaxal dañu gis ne élection présidentielle 2019 président Macky Sall dafa gagné ak 58 pour cent te ku gagné 58 pour cent pour man amuloo problème ndax majorité bi yëpp yow la ñu àndal te yow nee nga li tax nga am 58 pour cent danga def ay réalisation yu Sénégal yi teg seen bët kon déjà amoo benn problème ak euh, Sénégal yi institution yëpp moom ma ngi dox kon lan moo waral président Macky ndax li mu jox Idrissa Seck mënoo ne tey Macky amul ay nit yu ko mën a doxal tey li mu euh, li mu jox Omar Sarr wala li mu jox euh, keneen Macky Sall am na ay nitam beneen bi tamit ñii nga xamante ni tey dàq na leen peut-être yow mën nga ko gisee ne mais man mii di wax ak yow li ma gis mooy Macky Sall dàq na ñoo xamante ni peut-être tey euh, dañ leen tuumaal dañu am ay ambition mais lu ko fi jar ak 58 pour cent yi président Macky Sall la am ba muy yaatal gouvernement bi bay génne ay nitam di dugal ñeneen lan nga jàpp ne moo ko waral. saa waay dafa am waxu ay marché Sandaga. fi la gars yi fi la gars yi tam dëmb ñu bare ne ñii am ambition mun naa tur benn tur Amadou Ba wax ni ko lu nekk dafa am ambition Amadou Ba xaw ma ko musu musu musuma dem si musuma dem si activité politique am mais fi la gars yi tam dëmb mais dernièrement dem na secrétaire exécutif du parti toog na fa remercier le président de la république wax moom tey tey Amadou Ba pourtant wax ni ko lu nekk ak ñeneen tey am na ñu doon liggéey conseil économique social d'ailleurs jeunes yooyu tey jeunes yooyu jeunes yooyu tey tey leen fàtte leen dàq ñoom ñëpp tey président Macky Sall fan la njëkk a gagné xamuloo ko yaam la njëkk a gagné yaam la njëkk a yaam la njëkk a gagné yaam soo demee dëkk bi wax yaam foofu la njëkk a gagné mooy premier bureau vote bu jënd ni ne Macky Sall gagné na élection 2012 boobu yaam la woon. mais waa yaam tey am ni problème parce que am na ay montagne préfet ba mu ñëwee mu ne fii kenn du ko laal mais tey foofu ñu ko bëgg a toj laal ko xam loolu du yoon am na loo xam ne président Macky Sall daf maa yaakaar dafa mel ni comme président Abdou Diouf Abdou ba mu dama ba toog xamu sa patu meew xamul sax pour pour ndax meew am na Sénégal gouvernement élargi bi. mais xam gouvernement élargi tamit dans en science politique c'est-à-dire que je vais dire une chose je vais le dire avec toute mon en science politique quand on gagne des fois soo amee premier mandat deuxième mandat soo amee des fois ngay bëgg a renforcer conforter sa majorité ngay def appel à des choix à des sénégalais selon moom ni mu xalaatee afal la bu dem dëkk bi. am na loo xam ne waxtaan nañu ko vous a eu le dialogue et je peux dire que c'est il a toujours loolu moom dafa wane loolu moo tax à un moment donné mu ne moom day day gouverner avec d'autres sénégalais on l'interdit pas il pa gouverner avec d'autres sénégalais mais ñun notre plus grand problème que nous avons dans la paix c'est la reconnaissance vis-à-vis de ses militants vis-à-vis de ses responsables politiques fa am nu ñu wooyee tey APR yu ñu def cartographie de l'APR mais amul cartographie. waaw mais euh, René Pierre euh, yow mais yéen tey seen collectif euh, des militants authentiques de l'APR taxawal ngeen collectif bi est-ce que mën nga ma wax idée bi fan la fan la jugee ndax tey dégg naa tey ci weekend bi euh, am na si ñenn si yéen ñoo ngi dem euh, Sumone pour dafa waxtaanee seen i stratégie mais ndax mën nga ma wax collectif bi idée bi fan la jógee ak seen euh, plan d'action yi nga xamante ni tey moom ngeen fas yéene teg ndax tamit gis naa yow wala ñi nga xamante ni ñoo ñoo rebelle wu ci seen page Facebook ñu ne ñoo ngi bëgg amal tamit marche. jóge place de l'Obélisque dox ba RTS ndax mën nga ñu ñëwal ci loolu. mais xoolal soo gis nga dans dans la vie les gens se rencontrent et se c'est comme des atomes crochus tey l'être humain est inquiet am na kenn ku tudd Thiadiaby il a commencé à mener combat man individuellement ku nekk individuellement mais ñu bokk jëm ñu bokk ñu bokk gis-gis ñooy bokk tôt ou tard en anglais nee na birds with the same feather flock together. c'était les oiseaux ki ont les mêmes, qui ont les mêmes ailes les oiseaux qui ont qui ont les mêmes ailes voleront toujours ensemble moo tax ba caaja bi amee idée boobu man am naa idée bi yàgg na man du ma dugal loo xam ne mukk xamuma ko su may dugg engagement la kenn mu ma dugal loo xam ne mais ni bokkandoo c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est fait de manière instant instantanée et spontanée parce que ñoo bokk parti ni xamante mais déjà communication bi day yomb day liis ni rencontrer am suñu siège daf ay affaire am nañ siège suñu suñu siège mi ngi Sacré Cœur boru banque islamique tey jeune APR yëpp fu nekk gars yaa ngi woo pour ñëw tey tey dama lay expliquer am na ñu ngi mere ñu bëgg ñu dugalee si whatsapp bi te tey tey à am na ñoo xam ne ñoo ngi somoon pour def benn séminaire man mënu ma dem parce que dama doon ñëw fii am na am na am naa yeneen am na yeneen changement de après midi bi bi Dakar Plateau war naa rencontrer ay jeunes tey sax ñun d'ailleurs même Dakar Plateau man war naa organiser foofu benn manifestation bu mag pour woo waa pour woo waa gox ba parce que waa gox bi ñoom seen bopp ñoom ñoo ne du yoon lay liggéey ba dee si Macky la te yow kenn kenn kenn jox la reconnaissance kenn yow fu nga toog ba léegi na toog parce que la ma doon loolu tey soo ma su ma la nee kaay jàppale Macky Sall na xool ma man ma René Pierre dara chance est-ce que yow dina ñëw doo mos a ñëw tey nag ak xar suñu toog si ëtt ba lekk ba moo tax tey loolu moo tax ma ne ñu ak ndaw yooyu yëpp ñoo taxaw ne lii du am te lu ma gëm mooy la naa ñun président kenn kenn chantage ko de un président on le force pas un président on le conseil un président on lui donne des solutions tey ñuy bëgg ñun le président Macky Sall ni ñu ko xame man lu tax ma jàpp ko dafa toog mu ne këram ba mu gagné ba ñëwee këram ay je pense le 27 avril 2012 mu ne je suis quelqu'un de très reconnaissant donnez-moi du temps ku nekk xam naa yaakaar ku nekk naa la jàppale. mais ban plan d'action ngeen teg. ñun suñu plan d'action suñu plan d'action c'est jéem a massifier. dañuy jéem a wax parti bi wax jeunes yi wax bépp koo xam ne bokk si parce que dama man dama gëm personnellement cinquante pour cent moo fal Macky Sall mais huit pour cent kese APR la cinquante pour cent ay Sénégalais bokk ni APR mais am na ñu mer am na ñu ko mere. mais mais mais René euh, Pierre euh, yow mais yéen tamit euh, yéen collectif bi ak yéen ñi nga xamante ni yéen a mer ci APR xam nga René yow ni nga xamee APR man noonu laa xamee ñu bari ñu nekk APR maanaam. APR moom yàpp naa ne Sénégal ñu bari xam nañ ne bari nañu ñu mer ci biir APR moo xam ay jeunes lañ moo xam ñoo xamante ni nag euh, ay mag lañ ci parti bi mais yéen est-ce que tamit defu leen benn erreur yéen euh, collectif bi que avant que ngeen di def rébellion bii ngeen di def nii ci réseaux sociaux yi ak ci presse bi ngeen waxtaan ak sage parti yi parti bi euh, waxtaan ci ba président Macky Sall am lu mu leen wax wala ñu am lu ñu leen. proposé wala lu ñu leen expliquer pour ngeen mën a comprendre est-ce que démarche boobu def ngeen ko avant rébellion bi nga xamante ni tey moom ngeen commencé. mais damay wax benn affaire tey soo nekk ci parti boo xam ne ah xamuloo koy waxal tey soo demee si tey soo demee siège parti bi am soo demee siège bi am na administrateur parti Pape Mel Thiam mais doo gis kenn foofu koy waxal doo gis sa doléance tey su ma bindoon audience su ma bindoon audience président Macky Sall laa la ko dee président gis ñu ngi koy xotti ñu ne René Pierre la xotti ko loolu lu ma wër la. boo jàllee ma saa yi ma saa yi Mahmoud Saleh damay dem mu Saleh moom ma gën a xam xam naa ko moo amee 13 ans t la nekk li commission des travailleurs may yóbbu añ sama nijaay Alioune Badara foofu laa njëkk a dégg ni wala dialecte du matérialisme moom Trotsky lay wax Trotsky lay réclame Karl Marx man j'ai la chance de la tombe de Karl Marx à Londres à Highgate xam naa ko bu baax récemment dem naa débat daf may envoyé message su may dem débat muy suivre mais mosuma dégg kenn si APR ma dem débat mu félicité ma opposant muy félicité nu mel ni Doudou moo may woo Doudou Wade tonton mais René je te suis tu es bon tu es pertinent mais kañ la ma gars yi di woo ba mag ba ñuy commencé def lii suñuy gars yi commencé di woo mais loolu mooy lan. Ah, kon ñoo ngi leen di commencé woo nii. mais ñoo ngi commencé di woo. Mhm. mais euh, tey seen xeex bi euh, damay bañ euh, wala tamit mu bañ ngeen bëgg fee def comme xeexu étudiant rek ah sama mbokk étudiant nañ ma baal maanaam yéen ngeen commencé benn benn xeex. Mhm. gars yi woo leen na leen René teg leen seen xeex bi ci suuf. may leen président Macky Sall temps dina wax ak yéen bu ko defee René lam jàppoon lépp teg ko ne eh, jaabi xaw ma lam jàppoon moom tim eh, teg ko na le bu ko defee dootu leen crédible. am saa waay loo wax ni sax dafa may reetaan loolu lu tax mu may man da ne étudiant man j'ai j'ai man je fais partie d'un des plus grands dirigeants du Sénégal en 97 on m'appelait Kabila au lycée Delafosse ñu jàpp ma tëj ma ñaari fan jamono boobu Idrissa Cissé nekk moo nekk police jamono boobu laa la wax de en 97 Idrissa Seck mu yoon si Ablaye mu yoon si Ablaye Wade daf ñuy woo jox ni xaalis man ma bañ dem jël xaalis boobu am na ñu ko jël fii dëkk bi ñëpp a xamante loo muti def tôt ou tard da lay rattrapé man dama ne souvent mar naan moo ma gën mar naan taxul may naan petit su robinet ubbee damay ruus man tey du ñun tey on est ñun tey Idrissa Seck wax na très lu important mu ne si euh, il faut il faut il faut de la matière grise parce que dans la matière grise qu'on trouve des têtes grises si têtes grises am vécu expérience ñun tey ñu am vécu am expérience. pourquoi on l'expérience tey expérience dafa doon loo xam ne benn école la am ay leçons mais leçons coûtent cher on en sort tous savants vainqueurs ñun tey am ni expérience boo xam ne ñoom tey ils pensent que am ni fu leen yàlla teg de am ni ay responsabilité de muy ëpp lu ñu dara loo xam ne ñun ci combat. am ni en attends am nañu engagement te am na loo xam ne ñun tey du affaire u étudiant tegal fii ñu bàyyi noonu c'est-à-dire que ñun lu ñuy gëm tey on n'exclut pas de rencontrer des autorités ku mel ni porte parole parti bi suñu woowee ñu toog moom ku mel ni directeur cabinet suñu woowee ñu toog moom c'est pour vous savez pourquoi parce que il faut respecter l'APR ñun APR yi ñu bokk gënu ni APR de suñu APR ñu bokk APR yi mer ba ëllëg ba keroog ñoom ni yaakaar que eh ni dàq leen ñu def loolu mais ñun dañu jënd am man nee naa la sànq si njëbeen bi dama démission du PDS en 2004 Abdoulaye moo ko xaalis Macky Sall ku démissionné kooku est-ce que xaalis est-ce que ko. d'accord mais mais mais euh, mais euh, ñu wax euh, leneen ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, ndawi APR yi mooy ndaw yi nga xamante ni tey ñu bari mer nañ mais parti politique parti politique dañu doon gis ne PDS ak même Abdou Diouf P parti socialiste ay jamono mais PDS gisoon nañ euh, euh, kuréel gi nga xam ne moo ëmboon étudiants yi ak élèves yi bi ñu doon joué ci biir PDS gisoon nañ tamit UJTL rôle bi mu doon joué ci biir euh, PDS ak cadre PDS mais biir APR dañu gis ne kuréel yi ëmb ndaw ñi amuñu benn taxawaay ci ci ci visibilité sax réalisation président Macky Sall lan nga jàpp ne moo ko waral. non man du ma du ma de. parce que APR la boo tamit am na du question que ñun tamit dañu am lu ñuy naqari rek dañuy këpp suuf këpp suuf ceeb bi non du ma wax loolu. y a un jeune Moussa Sow qui est le coordonnateur des jeunes avant y avait Thérèse Faye Thérèse Faye sama la man maa njëkk a toog ma ne j'ai une candidate pour la Cogère c'est Thérèse Thérèse ñëw sama kër boobu muy soog a am doom ma ne yaay sama candidate ma ne teg statut ni ak ah, li nay def te Moussa Sow mi c'est on doit renforcer le comité cest à bu njëkk ba ay comité la woon. mais mais Moussa bu amul ay moyen nan lay xeexee. waaw foofu laay waxee foofu lay waxee. saa dama ne affaire bi du question approche jeune bi rek au début bu yooyu moo ramaat animation mooy lan commune bu nekk na gars yi def fa moyen tey siège na trop soo gisee siège bi AP dama yaakaar hôtel la lu mu bindoo noonu hôtel laa ko yaakaar siège bu noonu boo xam ne mënu fa am dara mais ça un parti dafa a nekk un laboratoire d'analyse d'idées mais malheureusement c' un parti boo xam ne tey parti boo lan la pouvoir boo xam ne lan la su dee mobilisation ñu woo leen ne la kaa leen mobiliser ñu jox leen xaalis su dee distribution ñu jox la ceeb jox la diwlin jox la lii ne leen yóbbu leen seen gox yóbbu leen lii mais loolu parti au pouvoir. d' accord parfois day xalaat. waaw d' accord mais mais René euh, yéen jeunes yi tamit yéen a ngi réclamer ka ne tey euh, da ngeen a gis ne maanaam dañoo jël président Macky Sall dafa jël ñi nga xamante ni tey ñoo nekkoon ay adversaire am. jël leen taf leen ci wetam ñi nga xamante ni tey ñoo nekkoon démb ak moom bërki dem mu mu mu trahir leen même mën naa jël euh, ay propos Moustapha Diakhaté moom noonu la ko jàppee dafa gis ne président woor ñi nga xamante ni tey ñoom la àndool démb ak bërki ak bërki démb mais yéen jeunes yi est-ce que tamit am ngeen benn expérience wala lu seen xam-xam màcc René yéen jeunes yi nga xamante ni yéen a rébellé wu yéen ñëpp ñu ko wane ak ñu ko wanewut loo xamante ni tey bu ñu leen joxoon yenn poste yi da ngeen ko mën a ndax nag ci république lañ nekk. ah man de personnellement man je suis diplômé en relations internationales approfondies am na ñeneen am ñuy diplôme mais c' est pas même pas question de diplôme. tey soo ngeen am jëlee France au temps de au temps au temps de Pierre Bérégovoy c' était il était premier ministre Laurent Fabius était barre de diplôme yóbbu France à son inflation économique tey lu am solo. soo nekkee Youssou Ndour nekk na fi ministre ñeneen nekk na fi ministre te lu emotional intelligence low attraction tey soo nekkee un manager c'est-à-dire amal équipe bu baax na wó ànd moom wër leen gars yi wër la. mais la mooy le problème la mooy le problème aujourd'hui c'est-à-dire que aujourd'hui les alliés de la per vois aujourd'hui c'est aujourd'hui les alliés de l'APR. Mhm. ñoom ñoo gën a ñoom ñoom ñi gën a ñoom ñi ñoom ñoo gën a nekk la ñoom ñu gën à la bonne place tey imagine imagine imagine imagine aujourd'hui ok c'est la politique qui comme ça la politique elle est ingrate te un bon matin un Cheikh Bakhoum Yatara mooy Yatara mooy chef am. Yankoba mooy chef am tey mooy ministre am man tey Barthélémy Dias Barthélémy man tey engagement engagement élève étudiant moo def Barthélémy dafa ko mais Barthélémy on l'a on l'avait renforcé au PS ni renforcé ko Barthélémy ba mu ànd ak ñu nekk député man maa ko ñu ko contesté man amul droit nekk député parce qu'il était en prison. mais mais waa APR nag dañ leen tuumaal ne da siis bëggu kenn dugal ko ci biir gouvernement bi euh, René. sëñ bi faral sëñ bi dama wax benn affaire ah président Macky Sall si ay waxam la moom moo ne APR yi ñu siis tey soo doon dugg soo doon dugg APR dugg benn kër wala jaar si buntu wala jaar si buntu bi si nay jaar man ku ma xam ne man je suis généreux dans l'acte dans l'effort ñun on a aucun problème à bi nee naa man PDS laa jógee woon foofu laa foofu laa bokkoon mais lu am solo tey munoo bàyyi sa ay malade ne na yeneen faj malade jàmbur mais loolu mooy lan tey APR fa sonn nañu ñu fatigué tey tey yow soo amul soo nekkee soldat soldat war a dem guerre amoo arme amoo bal boo tiré mais noo xeexee ñun tey mu leen tiré. mais APR moom baa du naax saay kon. mais mais tey APR tur bi moo fi nekk rek tur bi moo fi nekk rek APR mu APR ni ñu ko créé si ay frustration ñu ko créé ay mer ñu ñi mer ñoo ànd mais ñu mer ba ñu àndee ba léegi jàppale Macky sal mu falu léegi mu ne a ah, xaaral ma demaat sama fu ma bokkoon ëllëg fu ma bokkoon démb ñu mu ànd leen démb mu dem indi leen jëlaat leen teg leen suñu kanam mais ñoom suñu ñëwee tamit dañu war a xam ñoom fi ñuy fekk mais d' accord naa de na jël indi mais soo jël indi tamit ñu nga ñu nga bàyyi fii jàppale leen. d' mais yow euh, euh, René est ce que moo yi may jël mën nga ko utiliser maanaam biir APR euh, ndax d' accord nga ne biir trahison am na ci biir APR manque de reconnaissance jàpp nga ne am na ci biir APR manque de considération jàpp nga ne am na ci biir APR pëccoxoote bi ndax jàpp nga ne am na ci biir APR. man dama ne dama lay wax la sama wax sama wax du neex de sama wax du neex laa la wax dama ne président Macky Sall dafa trahir ñu bari si biir APR. man daf ma trahir dafa trahir sa jeunesse dafa trahir la jeunesse sénégalaise dafa trahir sa ay ministre tey propos bon Abdoulaye Dione day wax sama day conforter sama wax moom wax ci seen bi c'était très tôt dama ne Idrissa Seck mooy loo xam ne daka def gis discuter ak kenn tey ministre APR boo laaj est-ce que yëg na day ne tiimul xamul d'accord naa c'est le président moom muy ñemee constitution sénégalaise bi soo xoolee le pouvoir qui est conféré qui est conféré au président est énorme mais dafa am loo xam ne tey sooy def da ngay discuter loolu mooy état da ngay waxtaan sa ay nit ñi ñoo ànd ak yow di bëccëg nekkale si naat bi te ànd ak di xeex ñun saa waay campagne bi xoolal président moo ne campagne bi moo ne lii c'est le mandat de la jeunesse mais ñun suy ñëwee tey d'accord naa de su nekkee un parti qui un parti qui est bien organisé lii di waaj am mais kuréel bu nekk muy commune bu nekk mais jëm leen gisaw ñoom waxtaan ak ñoom ne informe leen ngay xam tey un communique di conseil des ministres day am. on n'arrive même pas à l'exploiter tey dara day xew tey dama gis keroog ni benn euh, conférence conférence de presse du gouvernement si ëllëg sa ma gis ne bi ne les trente les trente guerriers du président de la République le président à charge de trente guerriers ëllëg tamit ma gis ma ma gis tamit ma meññaa mu ne trente yi amul moom bokkul si liste boobu te trop mi si liste bi donc loolu ça veut dire problème ça veut dire que y a problème ça veut dire que y a problème dafa mais loolu c'est c'est pas digne d'un parti au pouvoir il faut qu'on change il faut qu'on revoie nos méthodes c'est important tey mënuñ toog fii loo xam ne di politique gars yi di jéem a def nii c'est-à-dire que il faut ñu am lecture soit on veut aller de l'avant soit yi bëgg a yóbbu dëkk bi feneen te les sénégalais sont fatigués les gens ont besoin que le président moom ñu fal que mu jël ay directives que mais attends président dafa war di àtte ay xeex moom du àtte xeex d'accord jaajëf euh, René Pierre euh, yow mi yow nga nekk responsable politique APR ci Dakar Plateau nga nekk membre ci collectif des militants authentiques de l'APR euh, léegi René yéen collectif bi est-ce que amul benn responsable politique gu APR bu ragal président Macky Sall nekk ci seen ginnaaw di leen ñaax di leen dalloo ci kaw président Macky Sall. sëñ bi. xam nga waxu yooyu sax soo ko soo ko waxee sax sànq tamit may waxtaan même soo ma déggee sax may wax war na xam man amul benn mbindeef si kaw suuf boo xam ne day ñëw si man personnellement wala ñooñu ma àndal mën na leen jàppal leen ma ñun li ahli duñ ko def la ma la duñ ko def ñoom bay nekk seen station yi est-ce que ñooñu est-ce que kooku ma jox ma poste est-ce que na ma jàppale na ma est-ce que woon ma jàppale kële noonoo ñun amul kenn koo xam ne mën ñu wax lu ñuy def am na ñuy wax sax ah soo leen defee lii ça va ça va servir de cause à d'autres personnes non non non non non ñun on ñun xoolal y a personne qui nous manipule ñun ñoo toog xalaat man nu ma toogee sama bopp di xalaat keneen toog xalaat keneen toog xalaat loolu la affaire bi demee te du ñun rek fii xoolal marche boobu dina am on va organiser une marche de mille personnes laa la wax su ma la waxee gëmm semaine prochaine on va faire des tournées waa Touba ñoo ngi woo pour ñu ñëw ñeneen ñoo ngi woo tey gaa yaa ngi gaa tey gaa yaa ngi tey gaa yaa ngi séminaire. dem dem dans les quartiers waxtaan ak ñoom mais c'est def écoute Ayatollah Khomeini ba muy def la plus grande révolution islamique en 1979 il l'avait fait avec des avec des jeunes dafa ne Shah d'Iran ces jeunes là ils seront libres ou bien ils deviendront des martyrs damay wax le président Macky Sall ñun nous serons libres ou nous deviendrons des martyrs dans la l'APR nous serons libres comment mooy day renforcer APR mooy commune bu nekk day def lu ñuy woowee source analysis strength and weakness of the product commune chaque commune bu nekk de renforcer les gens qui sont là-bas. on va aller vers des échéances mais tey ñun amuñu amun benn arme bu ñu demee si locales yi. d'accord mais nii ngeen di continuer nii bu dee euh, seen problème solution amul élection locale yi du ngeen def. sëñ bi waaw ah, dafa am loo xam ne tamit sooy dem sooy dem xeex doo joxe doo joxe tamit sa yenn sa yenn sa yenn technique yi. Hmm, il faut jamais sous-estimer l'adversaire loolu c'est loolu c'est dans c'est dans c'est dans l'art de la guerre de Sun Tzu. d'accord euh, euh Pierre président Macky Sall bi mu defee gouvernement bi. Seydou Gueye euh, ak Abdoulaye Coulibaly di liir liste bi nga gis ne euh, Amadou Ba nekkatul ministre des affaires étrangères Aly Ngouille Ndiaye nekkatul ministre de l'intérieur Omar Youm nekkatul ministre des transports terrestres génne nañ Mohamed Boun Abdallah Dionne. génne nañ Makhtar Cissé génne nañ Aminata Touré yow René Pierre yow mi ban lecture nga def jour boobu. non très honnêtement j'ai été parce que yaakaaruma woon euh, ku mel ni ministre de l'intérieur déjà ministre de l'intérieur mu naa ku mel ni ministre de l'intérieur ak jàmbaarate bi ak élection yi mu tenir élection bu rafet bu jaar yoon dindi ko am na loo xam ne tamit ak ñeneen ñeneen ah. mais am na loo xam ne tamit président moom mooy xam lu tax muy def loolu moom mooy tànn ay nit moom la yàlla moom la yàlla jag na loolu moom moo am euh, benn pouvoir boo xam ne constitution moo ko conféré tey su ko defee du ñuy discuter ci choix yooyu de man loolu laa wax ba tey du ñuy discuter ci choix yooyu dem après ça bu may def rek moom moo xam lu tax mu def ko mais tam beneen côté def ni xaw a tiital ñun suñu nekkee ay ndaw nekk APR di gis suñu ay mag ay kandam ama yenn poste occupé ko ni xëy un ba matin ni dindi leen te ñun xam nañ quelles sont les raisons bu jeex moom moo ko xam ñun suñu xolaat suñuy gis-gis day xaw a suñu gis-gis. dina xaw a tee si mbir bi. na gis tamit ñeneen ñëw ñëw ajouté à ñun ok peut être on peut être je sais pas on veut aller vers un grand parti te man gëm naa sax soo moto Karim Wade day ñëw Karim day ñëw àndal Macky Sall. ah bon te Idrissa su ñuy ànd Macky parce que Macky dama yàgg président muy wax ba mu nekkee opposant man le jour le jour mun na doon ministre mu gouvernement te man nu ma gisee affaire bi nii xam nga wax régime régime libéral de 50 ans kenn waa dañoo 2023. ah bon moo gis. ah 2023. d'accord léegi euh, euh, René Aminata ak comportement bi mu amee vis-à-vis ak président Macky Sall lan moo ci sa xalaat. xam man tey su ma ñëwee fii tey moo wax lu bon si am Aminata Touré man dama doon am na Touré xam naa ko bu baax sama xarit la boo mu nekkee premier ministre elle a tout pour que mu am toog naa bureau premier ministre mu woo ancien directeur de l'AS de agence police de proximité docteur Pape Xaliña mu maître Pape Xaliña mu ne dama bëgg na xool René Pierre CVM c'est un jeune très président dafa ne c'est un jeune du président de na compétence am na lépp ma dem rencontré yàlla tudd dafa ko fois may dem aéroport di jëli benn Sénégal bu tudd Matar Seck gaañu na yàlla yàlla yóbbu àjjana il avait fait beaucoup de choses dont d'humanitaire pour Sénégal mu nekk en période fatidique war a gaañu ma jëli ko aéroport ma gis ko à la coupée de l' avion mun ma René félicitation boobu yoon premier ministre dégg naa yaa ngi liggéey ak Souleymane Diop comme chef de cabinet tey moom appréciation may def moom moo ko xam nekk na fi gis naa tamit nekk na consultant si parti bi ñu jël ko mu ànd ak président Macky mu def liggéey boo xam ne bu bu bu boo xam ne ñëpp ñëpp rafetu ko président Macky tamit jox na ko tamit ndomba tànk yoo xam ne mu la jox doomu aadama yëpp def na ko premier ministre def na ko euh, envoyé spécial mm-hmm. daf na ko tamit pré daf na tamit président conseil social. après diggante bi man mun moo wax carrément la moo xew seen diggante ba mu demeet ko mun ma wax léegi la mooy la moo tax moom tamit ba mu defee déclaration ñu bari ñu koy ñaawlu que moom ba léegi tudd président Macky Sall man loolu mënu mu si commenté parce que mënu parce que loo xam ne xamuma ko tiimuma ko fekke ma ko mënu si commenté loo mun commenté rek mooy sama rapport ma ba doomu aadama yi am naa rapport bu baax moom même rapport bu mu amee moom boobu la ak le ministre le ministre Oumar Youm ministre Oumar Youm am na bu am na yéene bu baax si man. sa xarit la sama xarit la am na yéene bu baax si man waxtaan naa am na lu ma bëggoon jox yàlla def na nekkatu fii nekk nekk yàlla def na il n'a pas reconduit mais am na lu ma bëggoon jox mais est-ce que loolu tax na tey man may mer non non damay gëm yàlla la man gën ndogal yàlla la parce que nomination est divine tey Aliou Ndiaye am naa def mon rapport ak moom Amadou Ba xamuma ko miinuma ko mais élection de élection 2017 législative dëgg laay wax toog naa Pape Amadou Sarr ku yore bi woo ma mu ne ma René dama la soxla ñëwul bureau ma ne ko pour lan ma ne ko ma am proximité mu ne ministre ma wala dama la jàppee soutien ba ma ñëwee ma ne ko yaay bras droit joxuma xaalis sax ma ne ko yaay bras droit Amadou Ba ma su nekk ma def dem si moom nekk utal ma ay utal ma utal ma ay ay soutien pour pour waa DER pourtant def naa acte politique il est mu gis sama mbooloo gi sama base mais daf dafa ma loolu parce que la moo tax yooyu yëpp yëppal ma koy wax tey du ma du ma neex naa fekk de dafa am ay dafa am ay nit yoo xam ne dañuy ànd ak nit nit def si ñoom lu bare. ni xëy suba ni dàq kooku parce que loolu wax souvent ma ne que fii on va vous lécher après on vous linge et après on vous lâche. d'accord d'accord léegi euh, ñu jeexal ak yow Dakar Plateau très sincèrement ndax Dakar Plateau nag René euh, am nga fa doole. est-ce que foofu tey am nga fa doole am nga fa ay militants yoo xamante ni tey boo leen woowoon tey ci samedi ju ñu génn. sëñ bi soo defoon micro trottoir tey Dakar Plateau dama lay dama lay ñaan bés moo tax des fois je demande au journal de faire des micro trottoirs par rapport à des loolu c'est important il faut le mettre dans vos bu bu organisez des micro trottoirs bu di rien nañ dem goxu mbiri responsable yëpp nañ demande à la population j'en suis sûr et certain si vous allez à Dakar il est immoral de parler de soi-même mais dans des cas exceptionnels je suis obligé de recourir au jeu et au moi tey soo demoon Dakar Plateau na am na fa mbooloo sama yaay def na fa lu baax sama ay maam lu baax ñu fa def askan li bu laa dëkk sama sama sama ay maam ñoo fa nekkoon maire Jojo Gomis Wagan Diouf sama maam tudd Amadou Assane Ndoye ma dëkk rue Amadou Assane donc loolu rek ça veut tout dire ma dëkk ma dëkku si askan boo xam ne foofu ñu lay jàppale tey jeune Dakar Plateau ñu bare ñu ngi toog di ma ne René Ngor taxaw ma ne eh, bés mën a taxe yàlla moo koy wax. mais mais est man nga faa am doole ci kanam Alioune Ndoye euh, il paraît aussi que yaa xam foofu lay militer. xam nga soo xoolee euh, wàllu Alioune Ndoye maire Alioune Ndoye man je peux dire que c'est un bon allié du président de la République ça je le dis très honnêtement et très franchement il fait un travail excellent pour le président de la République et keroog j'ai été euh, vraiment soutenu par son discours à l'émission Jakaarlo ba mu wootee on a de bons rapports mu ngi liggéey bu baax yaa xam mbay ne wax sama sama xarit la sama lépp la on se parle mais gën wax mais yaa xam yaa xam doon na def acte politique mais léegi on le voit mais léegi on le voit plus sur le terrain mais am na yeneen femme ku mel ni Ndeye Thiam président des femmes sama yaay elle a été nommée récemment chargée de mission au chargée mission ministère de la femme te au passage maa ngi gërëm di en di remercier la ministre Ndeye Sali Ndeye Salimata Dieng lu mu nommé sama maire c'est pas parce que doxoon na parce que les gens disent sama yaay ñu ko nommé parce que man la moon non non sama yaay elle est engagée. elle met son argent dans le pa elle a été agressée sama sama yaay ñu ko agressé dafa ànd ak ministre bi dem ba Pekes au retour elle a été agressée weeru koor la woon parce que il devait rentrer. d'accord donc pour euh, pour pour, pour plateau. Mhm. on travaille si coalition Benno Bokk Yaakaar. le moment venu on va discuter en interne xool lan mooy le meilleur profit pour Dakar Plateau. man tey damay wax man am naa ambition Dakar Plateau c'est pas de la prétention un jour bëgg naa doon maire Dakar Plateau mais du ma tëb ne man la mais sàcc nañ la yomb na topp wante foo ko tëgg mooy jafe man fu ma neex laa dogoo bi Dakar Plateau. d'accord euh, lan ngay tàggoo René Pierre euh, Yahoume. man lu may tàggoo mooy tey ah tey damay jox un message adressé au président de la République c'est-à-dire que tey dama constater un isolement du frère du frère du président qui est devenu une à la bonne marche du parti et du pays en général tey damay demande au président de la république ma ne que l'alternance générationnelle boo xam ne qui devrait redonner de la vigueur et du sang neuf au parti est tey dama ne le président de la république tey dafa am une préoccupation genre la préoccupation genre tey tey gis nga dëkk bi lu fi xew ay borom ñaari tur yi ay affaires yu grave fi xew si dëkk bi si booru grande mosquée loolu c'est dangereux dans un pays comme le Sénégal cest que il faut que attention dans fi dëkku El Hadj Malick Sy la fi dëkku Serigne Touba la fi dëkku cardinal Thiandoum la fi dëkku Baye Niass la c'est-à-dire que la préoccupation genre et la lancinante question de la parité et complètement reléguée aux oubliettes tey président Macky Sall maa lay ñaan man sa soldat ak ñëpp ñoo àndal ñun jeunes yi ak jeunes sénégal ñoo lay ñaan gënal jàppale ndaw yi sa parti xamoo lu fa xew de mais am na jàngoro bon bu fa dem tey ñëpp a feebar sa parti xam nga corona tey AP dafa corona. te vaccin bi président Macky Sall moo ko yore war na régler vaccin immigration war na régler vaccin wu APR parce que ñun pour ñu mun jàppale suñ suñu gox président daf ñu war a jàppale parce que nit soo ànd ak moom nga koy jàppale mu mun jàppale ay nitam loolu laa amuloo di la di tamit di la di la remercier parce que ba nga ma wooyee mu ñëw vraiment gis naa sa taxawaay gis naa tamit yàlla ni euh, defe naa fii Magic Diop moo ko moom tamit euh, gis ni gis nañu ko tamit mu ngi béy si réew bi Euh, à chaque fois muy jël ay jeunes bien que des fois du ma bokk moom ay idée ça je le dis très honnêtement ah du ma wax ay mais dama gis moom day jàppale ay jeunes ay entrepreneur benn boy moo ma ne da gis mu voiam rek mu ne ko kaa ma jël la di ko jàppale même dégg naa période corona bi doon na leen jàppale di leen fay donc vraiment ñoo ngi koy encouragé gis liggéey mi def ni xam ne dans ce pays il faut qu'on croit à l'expertise locale il faut qu'on croit à l'intelligence important pays bi man damay wax ne there is no place better than home foo muti dem mënoo fa jouer Angleterre première division en France Sénégal nu mu jouer première division fii laay nekk un exemple ma jox i bonne image dans les jeunes de mon quartier ne ne René mooy suñu référence man dama gëm référence nit day am valeur tey loolu c'est très important ñi mel ne Ousmane Blondin ñoo ñu ay gor ni woon nit ni dee tey ñooñu ñu war a am ay sénégal yu mel ni comme ñoom ñu xam ne gor gor c'est important xaalis waru tax nit jaay ngorom. jërëjëf René Pierre euh, Yahoume mu nekk responsable politique APR euh, fi nga xam ne mooy Dakar Plateau moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ngeen naanoon si ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi kon mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay.